asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad mbokk yi ci kippaango gi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon ñu dellu si waat ak yéen ci seen ñaareelu jotaay ci téere bu am solo bii di al arbaun al wildaniya démb defoon nañ ci ay leeral kon tey dañuy ñëw yeggali rek ndax ñu mën a tënk kon tey ñu ngi doore ci li nga xamante ne mooy ñeenteelu xadis bi muy xadisu abi hurayra yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ni ayatul munafiq thalath ida xaddatha wa ida waada axlaf wa ida tumina xaana muttafaq alayh di fàttali ba tey mbokk yi nañu jéem a góorgóor di mokkal ahadis yi parce que loolu mooy jubluwaay bi kon yi jël démb wax dëgg yàlla yow mii nga xamante ni yaay topp dars yi war nga koo mën a mokkal nga xamante ni téere ji bis téere bis boo ci paree wax dëgg yàlla nga taataan fi lu leer di nga ko mën jottali ak langue boo mënti dégg moo xam séeréer la moo xam tukulóor la moo xam joolaa la moo xam mandinka la moo xam leneen ak leneen ak nga mën koo tuxal ci langage boobu bu ko defee njariñ li gën a matale la chaque lii bu ko doon def wallahi alladi laa ilaha illa huwa léegi euh, sunna tasaaroo ci àdduna bi mooy kenn ku nekk wax dëgg yàlla balligu anni walaw aaya na nga jottali li nga xam doonte sax benn aaya la waaye ñu bëri tey dañuy jàng rek toog waaw di jëfee na alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bi ñu xamalee sunna maaye da nga war a jottali loolu saxaaba yi boo xoolee pourtant ñi lañ ñi lañ jàllee lislaam kon loolu lañ ci góorgóorlu baax a baax kenn ku ne na ko def sa yitte nga am projet boo xamante ni yow da nga naan man wax dëgg yàlla dinaa fexe ay nit dugg ci sunna waaw loolu nag ci ndimbalu borom bi subhaanahu wa taala mais dina bay sama waar lépp lu ma xam dinaa ko lan dinaa ko dinaa ko jàngale moo tax ndeysaan boo xoolee ci dëkk Europe yi ñi nga xam dañuy tuub nekkoon ci naka sudul noonu bu ñu tuubee détermination bi ñuy am am na ko ci génnoon fan yële ndeysaan tuub jàng faatiha mokkalu ko sax ñëw taxaw ci kaw bar bi waaw bi ni ñu jullee pare mu jug taxaw di tari faatiha bi di ko yàq ñëpp naan waa kiilu ko dal mu ni damaa tuub dégguñu ni diina ji ballihu anni walaw aaya allahu akbar xool it himma boobu himma ali détermination boobu xam ne kooku la mu xam lay jottali tey ana ñaata nit ñoo jàng ba li tuddee yey seen këyit comme ni ñu koy waxee mais ñu beru seen ruq toog am ñoo xamante ne wax dëgg yàlla defal leen tawfiq ñoo jàng ba pare dellu siwaat mam génn bitim réew jàng alxuraan ak sunna dellu siwaat ñu jël leen en ñuy réeral nit ñi wala ñuy nëbbatu duñ nangoo wax parce que dafa am ay mbir yoo xamante ne moo ko waral yàlla nañu yàlla musal ci loolu te loolu dafa bokk ci wor wor li gën a te bari nañ ci xeet bi ay workat yi jàng lislaam ba xam ko teg ci sa tànk di wax lu la neex ngir ay privilège yàlla nañ ci yàlla musal yaa ayyuha alladina amanu laa taxuunu laa taxuunu allaha wa rasula wa taxuunu amanatikum wa antum taalamuun tey ñu bari ñu nekk ci penc mi jàng nañ ba xam alquran ak sunna génn dem jàngi yi ñëwaat waaye lem li nga xamante ne mooy seen génn toog ci li nga xam mooy ndëslaay laay réeral doomu aadama yi ñu mel nii nag wax dëgg yàlla société bu ñu nekk jar naa tiit yàlla nañ yàlla musal ci fitna kon mbokk yi euh, loolu ab euh, gendiku mu ndaw la kon yonent bi alayhi salaam mu ni ayatul munafiq thalath mandargay naafiq ñett la naafiq nag mbokk yi faaw ñu xam ne ñaari façon naafiq moo am naafiq boo xamante ne moo ñu tuddee an nifaaqul i'tiqaadi naafiq bu mag yàlla nañ ci yàlla musal loolu moom jullit moom du ko mel waaw parce que loolu kéefër la mooy ñi nga xam dañuy feeñal lislaam fekk ni kii ay yéefar lañ loolu nag amoon na jamono yonent bi salaam yu bari lool moo tax boo xoolee subhaanallah seen danger bi ñu danger moo tax yàlla tuddee leen ab saar ida jaaka al munafiqun qaalu nashhadu innaka la rasulullah parce que ñoom ñoo gën a garaaw sax yéefar yeeg <laughs> juif yeeg chrétiens yi parce que juif yeeg chrétiens yi yoo xam nga ni ñi ay juif lañ ñi ay chrétien lañ di nga xam nan ngay jëflanteeg ñoom waaye naafiq déedéet da ngay jàpp ni yaa ngi moom yéen a yem mu xam say secret yëpp subhaanallah moo tax daf lay rey ci ginnaaw te doo ko yëg moo tax ñoo gën a danger naafeq yi société bi te ak ñoo bari nag ba tey yii bari nañ lool kon loolu mooy an nifaq al i'tiqaadi loolu moom kéefër la yàlla nañ ci yàlla musal jullit moom du mel noonu mais xadiit bi yonent bi alayhi salaam di mooy jullit boo xamante ni lenn ci ay mandarga naafeq dafa nekk ci moom liñ tuddee nifaq al amali mooy am na ci jullit ñi xamante ni saa yi ñu waxee fen tey jullit ñu bëri ñoo dàq fen wala iyaadu billah <laughs> waaw duñ wax dëgg ñoo dàq njuñ njaaj ñoo dàq fausser rendez-vous rawatina rendez-vous ñi nga xam ne ay julli sax ñoo leen gën wax dëgg yàlla ñoo leen dàq respecté rendez-vous loolu nag mu nekkul doy waar loolu ci mandarga naa feq la bokk mais nekkul ni kum nekk ci yow rek naa feq cent pour cent nga déedéet wa ida tumina xaana boo ko wóoloo mu la kon yii dafa bokk ci mandarga yi nga xamante ni yeneen tibaan sam ne ne kenn kum nekk ci yow am nga mandarga ci mandargay naafiq bu yépp dajee ci yow nag am na ci beneen riwaaya mu ne wa ida xaasama fajar koo xamante ni saa yoo xuloog moom mu xool maam mu jël lu mel ni xamee di la ko yàq maam di la sosal daf lay sosal boo leen xulóobee am ñoo xam noonu lañ mel saa yi lañ jotee rek ñu inventé affaire créé affaire naan yow de nangam naan te dara du ci dëgg lool ci mandarga naa fekk la bokk moo tax ku moo tax ku ne kenn ku nekk war ngaa peser sa bopp ndax yow li ngay wax danga ba tey ndax yaa ngi fen wala doo fen ci loo xam ak tayeef la wala saa yu la nit ki wóoloo nga war ko wala soo joxee rendez-vous ko moo tax naafeq yi mbokk yi ñoo gën a yées ci li nga xamante ne mooy mbindeef fi loolu nag naafeq yi nga xamante ne ñoom ñooy naafeq cent pour cent amaa na koo xamante ne lenn nekk na ci yow ci li xamante ne mooy kon wax dëgg am nga lenn ci cëru naafeq na nga ko maytandiku baax a baax kon da war a maytandiku fen war a ndax fen du danger la mbokk yonent bi salaam nee na nit ki du dañ di fen ah bañ tuddee ko fa yàlla fenkat am na ñoo xamante ne tey ñu bëri ci nit ñi fenkat la ñu tuddee ci yàlla kaddaab <laughs> waaw loolu nag loolu nag lu doy waar la waaw nga tudd par exemple am tur bu seel sell ñu tuddee fa yàlla fenkat ngir fen ngee fen loolu mbokk yi yàlla na ci yàlla musal lu yéeme la am ñoo xamante ni ñu ngi leen tuddee tam ci yàlla saddiq aju dëggu gi allahu akbar nit ki leen di wax dëgg di takkook dëgg ba ñu tuddee ko fa yàlla ku dëggu ki ndax dëgg day orienté jëmale ko aljanna waaye fen day orienté di ko jëmale fi nga xam mooy safara yàlla nañ ci yàlla musal kon loolu mooy xadis bu njëkk bi kon mandarga yi ne ko kenn ku nekk maytu ci ñun balaa nga tàbbi ci li nga xamante mooy xadis bi ñaareelu xadis bi muy xadisu jaabir jaabir ibn abdillah yonent bi alei salaam ni bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salaa li dox ci diggante nit ak kéefër ak bokkaale mooy bàyyi julli laa ilaha illa allah waa léegi bu fekkee yonent bi moo wax lii al imam muslim génnee xadis am ñoo xamante ne ñoom duñ julli duñ woor buñ dee àjjana lañ jëm loolu mooy lan la chaque ne buñ dee safar lañ jëm parce que ku dul julli yéefar nga yéefar tey yu bëri nag mbir yu mel noonu dafa am yoo xamante ne mooy dox ci diggante bi ba euh, duñ jël position par exemple nit koo xamante ne papaam du julli du waaye am na xaalis bari mu dee mu koy doon loolu daganut ak privilège bu ko xool parce que ku dul julli ah, maam du ku dul julli yéefar la du jullit waroo leen donnante waroo ko ñaanal yërmande waroo waruñu koo suul bu dee fi nga xam fa la ñuy suul julli dafa doy te ñu bëri instant bi jàpp nañ julli moom wax dëgg yàlla seen yoon nekku ci kon nit diggante nit ak kéefër ak bokkaale mooy bàyyi julli moo tax saxaaba yonent yi amuñu woon lenn luñ gis muy jëf lu ñuy pratiquer nit ki di ko bàyyi mu lay génne ci diin lu dul li nga xamante ni mooy mooy julli julli mbiram dafa màgg mbokk yi mooy deuxième position comme ni mu ñëwee démb ginnaaw ñaari baatu seede yi moo tax yàlla subhanahu wa ba mu koy farataal yonent bi daf ko rañaane ko moo tax ñi ciy sàggan dañoo xamul moo tax yàlla yàlla bu fekkee dafa ku ñuy julli fa waylul lil musallin ñiy sàgganee julli di ko yeexee ci waxtoom waaw kon ki du julli nag moom bàyyi ko définitivement kooku moom <laughs> lan mooy lan kooku lan mooy taxawaayam kooku du jullit kon ku bàyyi jullit ku bàyyi julli yéefar la naam kon bu góor ak bu jigéen dañoo war di julli xir ci lool di jooxe julli ci waxtoom ndax inna salaata kaanat ala al mu'mini kitaaban mawquutan mbokk yi julli mag la moo tax julli du wàcc kenn kenn kenn kenn kenn moom mooy jëf bi nga xamante ne amul feebar rek ah dang noom danga koy def selon ni nga ko mënee moo xam da taxaw moo xam da ngay toog moo xam da ngay tëdd moo xam da ngay julli di junju même bu fekkoon ni waxtu julli dafa nar a génn déglu li ma lay wax de te amoo li nga xam loo suturaalee sa awra da ngay julli ci situation boobu laa ilaha illallah même bu fekkoon ni amoo ndox pour jàpp amoo suuf pour tiim da ngay julli ci situation boobu ak foo mën di ak noo mën di tiimee mbokk yi kon moo tax lii moo tax borom xam li gën a wér mooy nit ki bu fekkee dafa tey bàyyi ab julli du ko fay day jéggalu yàlla parce que loolu mënu ko fay waaye na tey ñu bëri man julli dama xamul dañ ko jàngul xamul leen neex la ñuy def quoi lu doy waar mbokk yi mbokk yi julli lu yéeme la moo tax bàyyi ko kéefër la ku dul julli yéefër nga waruñu laa may jabar boo rendee kenn warta lekk boo deewee kenn waru la suul fi ñu suul julli ñi kenn waru la jullee moo xam papa la sa papa moo xam sa yaay la moo xam sa doom la moo xam sa rakk la ak ku mënti doon boo ko defee rek safaan wi mooy def nga lu yàlla tere parce que yéefër yéefër wax dëgg yàlla lislaam ak kéefër mënuñoo ànd yàlla nañu yàlla musal kon nañu fonk li nga xamante ne mooy julli xadisu bi nga xamante ne moo ci topp mooy xadisu juróom bi mooy xadis abi hurayra yonent mu ne almumin alqawi xayrun wa ahabu ila allahi min almumin aldaif wa fi kulli xayr allahu akbar yonent mu ne almumin alqawi julli boo xamante ne jullit bu am kattan ci lépp nag kattan ci lépp maam jullit boo xamante ne foo ko fekk rek day nekk koo xamante ne ku xër la ci lu baax kon loolu mooy kattan mu ne xayrun moo gën wa ahabu ila moo gën fa yàlla min almumin aldaif ci jullit boo xamante ni bu feebal la bu feebal am na ñoo xam dañoo feebal dëgg yàlla amuñu ittee sawaruñ ci def lu baax wax dëgg yàlla tayel waaye ànd loolu lépp imaan gi nekk ci moom gëm yàlla gi wax dëgg yàlla loolu kenn du ko yem leeg leneen mu ne wa fii kulli xeer nag ñoom ñëpp nag kenn ku nekk yiw mu ci moom kon yonent bi alayhi salaam daf ñuy soññ ci baat yu gàtt yi di ñu ni dañoo war a nekk ñoo xamante ne ñu ne la ñu am kattan la ñu am détermination ñu am force lañ ci suñu ngëm yàlla am yaqin ci yàlla ak topp gi ñuy topp Seydina Muhammad alayhi salaam ak sax ki ñuy sax ci suñu diine ak jàng gi ñuy jàng xam-xam ak di ko partager nga sawar ci am ci kattan am ci détermination bu ci yokkat kon loolu mooy al muminu qawi ñu bëri tey boo waxee ñu ah nangam ak nangam di ut loolu baaxut kon boo xamante ne dafa am détermination am kattan ci lépp nag ci lépp loo xam lu baax la rek mu jël ko sérieux kooku la shakka ni moo gën ki nga xamante ni euh, melul ni moom waaye na ñoom ñëpp wax dëgg yàlla am nañ li nga xamante ni yiw mi ngi ci ñoom ndax am nañ ngëm yàlla dañuy am ñoom dañuy seede yàlla subhanahu wa mooy kenn xam tawhid kon loolu tamit lu jara bàyyi xel la kon li ñu bëgg a wax rek yonent fii day junj ne jullit wax dëgg yàlla moo xam am na yiw bu nekk ci moo xam ku dëgër la moo xam ku faible la waaye nag ka nga xamante ni dafa dëgër ci lépp nag ci ngëm yàllaam ci ci détermination ci sàkku xam-xam ci def lu baax ci wasaar yiw la shakka ni kooku moom moo gën fa yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ yàlla boole ci ñooñu al muminu qawi xayrun wa ahabu ila allahi min al mumin al daif wa fi kulli xayr ah, xadisu juróom-ñaareel muy xadisu Ousmane ibn Affan yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax ni man tawaddaa lilsalaati fa asbaga alwudua thumma masha ila alsalati almaktubati fa sallaha maa aljamaa gafara allahu lahu dunuba rawahu alimam muslim allahu akbar nee na képp koo xamante ni jàpp na te julli tax maam bi ngay julli yàlla def ne ida qumtum ila salaa faghsilu wujuhakum kon ki nga xamante ni dafay jàpp ngir julli waaye mu sëmbaxat li nga xamante ni mooy cër cëram yépp ci li nga xamante ni moom la war raxas ci biir julli gi bi mu paree ci loolu rafetal jàpp gi dem ca jullikaay ba as salaatul maktuba mooy julli farata nee na mu julli ko ak mbooloo mi lii nag kon nga ciy déggee kon li tax ñuy wax ci cosaan mooy góor parce que góor moom la julli war mbooloo julli mbooloom la war mais jigéen julli mbooloo waru ko bal jullee këram sax moo gën ñu bëri nag yenn saa dañu fay def njuumte jigéen ñi dañ naan dañoo bëgg yiw dañuy dem ci jàkk nangam mais yeneen timasan bi mu wax loolu mi ngi woon almadina te pourtant foofu julli fa benn julli jàkk day tolloog mille julli ànd ak loolu lépp mu ne jigéen jullee ci këram mooy li gën mais bu jugee di jëm jàkk kenn du ko tere waaw ñu bënn dañ naan damaa bëgg a dem fii yiw parce que jullee ji jullee sa kër mooy li gën l'islam faaw ñu dégg ko kon képp koo xamante ni jàpp na ngir julli rafetal njàpp ma dox dem te ca jullikaay ba julli farata julli ko mbooloo mi kooku jéggal nañ ko ay bàkkaaram allahu akbar mbokk yi ngëneelu yàlla maam maam dafa yéeme parce que yow da ngay def loo xamante ni yow daf la war xam nga li nekkul fa nekkul sunna wala lu ñu sopp déedéet daf la war maam li nga li la war moom la la yàlla sant nga koy def ba pare ñu la ciy bindal tuyaab bi la ci defal ay mbir yoo xamante ni kenn xamu ko ëllëg ñu la koy fay àjjana yu kawe kon man tawadda li solaati fa asbaxal wudu kon nañuy góor góorlu di rafetal li nga xamante ne mooy njàpp mi ci bu ñuy waajal pour julli góor ñi dem ci mbooloo ma jàkka ji jullee ko fa képp ko def loolu yeneen bi alayhi salaatu salaam mu ne yàlla jéggal na la li nga xamante ni mooy say bàkkaar man tawaddaa lilsolati fa asbaga alwudua thumma masha ila lsolati almaktubati fa sallaha maa aljamaati gafara allahu lahu dunuba allahu akbar kon yàlla ñu yàlla jéggal li nga xamante ne mooy suñu suñu bàkkaar kon kenn ku nekk ci ñun dafa war a góor góorlu di rafetal li nga xamante ne mooy njàppam balaa moo balaa moo julli naam kon xadis bi xadis la boo xamante ne bu am solo la ñëw di soññee ci ay mbir yoo xamante ne yu am solo bi ci njëkk mooy rafetal li nga xamante ne mooy njàpp mi rafetal njàpp nag mooy jàpp comme ne yonente bi sam doon jàppoo naam boo paree nga dox dem jàkka ja jublu li nga xamante ne mooy julli julli farata naam beneen bi nga julli ko ci li nga xamante ne mooy mbooloo képp ku def loolu yàlla subhanahu wa taala jéggal na li nga xamante ne mooy say bàkkaar xadis bi nga xamante moo ci mujj muy xadisu abi hurayra ba tey yonent bi alayhi salaatu man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaadahu min annaar laa ilaha illa allah yàlla nañu yàlla musal di fental yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci loo xamante ni waxu ko ak ñoo bari yonent bi ni man kadaba alayya képp koo xamante ni waxal na ma lu ma waxul fenal na ma sosal na ma mutaammidan te nag moo ko tey waaw moo ko tey nee na kooku na préparé tooguwaaye mbir safara fal yatabawwa maqaadahu min an naar mbokk yi xam nga waxoon nañ sànq fen dafa bokk ci mandargay naafiq waaye fenal yonent bi moo gën a garaaw parce que fenal yonent bi li gën a garaaw mooy nit ñi dañuy jàpp ni kon wax dëgg lii ci diine la bokk tey bu ko ay nit jëfee nga xamante ne dafa sukkandiku ci loo xam day mabb diine kon yow fan nga jëm ëllëg loo koy lay ak yowmal xiyaam ndax ki tetal nit ñi ci yiw nit ki def ko keneen def ko keneen def ko da ciy am yoolu ñoo ñëpp ni ki noonu tamit safaan wi boo tettaleel lu bon wala iyaadu billah kon fen ci li nga xamante ne mooy xadiisu yonent bi alayhi dafa bokk ci kabairu zunub ci bakkaar yi gën a mag moo tax képp koo xam day woote woo naan yonent bi nee na wala yàlla nee na te yàlla waxu ko yonent wax ko kooku de mooy ki dàq tooñ mooy ki dàq fen yàlla mu ne man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban ki dàq tooñ mooy kii sosal yàlla ak tamit di sosal yonent bi alayhi moo tax képp koo xamante ni yaa ngi tuxal ab xadiis nga war a leer lu bu baax a baax a baax fatabayyanu fatathabbatu na nga leerlu ndax yonent bi moo ko xoola déet laataa ngaa askanelee yonent bi loo xamante ni wax ko parce que boobaa di nga yàq yaa ngi màbb loo xamante ni pour nga defaraat ko problème la tey nag boo xoolee wax dëgg yàlla ñun dañoo nattu ci ay réseaux sociaux internet bi foo dem rek ñu ne yonent bi nee na nit ki yoonam nekku ci gëstuwul ndax wér na wala wér day ñëw rek tuxal ko noonu yenn saa yi nga dégg sax ñoo yonent bi nee na guddi leen xadr lii lañ war def lii lañ ci war a def yonent bi nee na ñaar rakkaay dañ ko a julli am na lu ñu tuddee julli fay faat lépp di ko askan la yonent bi te dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu nag mu nekk loo xam lu doy waar kon jullit na maytu man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min an naar yal nañ ci yàlla musal kon li nga xamante ni moo ñu war ñun fa al waajib alayna mooy an nataakkada min sixati al ahadith qabla nisbatiha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam kon li ñu war mooy ñu confirmer wu ngir ndax xadis bi ñuy tuxal lu wér la ndax yonent moo ko wax wala déet parce que balaa ngaa tabax ab atte ci da ngay da lay leer ni yow la ngay tabax ci kawam dafa nekk lu dëgër ba pare kër balaa ngaa ñëw tabax day fekk fondement ba dëgër wér sinon bu dul loolu boo ko tabaxee ci lu dëgëru day daanu c'est la même chose xaadis yonent bi alayhi salaam waaye nag dañuy sant yàlla ba nga xamante ni jamono ji wax dëgg yàlla affaire yomb na lool tey am na ay application yoo xamante ni wax dëgg yàlla borom euh, borom xam liggéey nañ ci lu am solo xamante ni da ngay ñëw dugal xadis bi rek boo dugalee cetu xadis bi rek wala benn moo ci xadis bi wala benn phrase mu la li nga xamante mooy atte bi lii la ci albani wax li la ci imam ahmad wax addaar qutni lii la ci wax imam buxaari lii la ci wax xadis bi wér na wala wérul wala bu wéree tamit a turuqi boo boolee yoon yëpp wér na loo xam dañ la koy leeral am na benn application bu tudd albaaxitul xadis bu am solo boo xam boo dugalee xadis da lay indil ci da koy indi ci couleur bu euh, rouge ay bu rouge la koy def bu xonq wax la xadis bi ndax wér na wala wérut kon yooyu tamit nit ci def cee war a jariñu mais ànd ak loolu lépp am na ñoo xam ne seen yoon nekk pare dañoo sàggan kon wax dëgg yàlla euh, jamono ji tamit bokk na ci li nga xamante ni moom la yàlla yombal ci ilmul xadis ki ci liggéey lu am solo mooy Mouhamed Nasruddin al albani rahimahullah taala yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yokk ay darajaam vraiment yombal na ahadis lu bëree bari bari bari daanaka amul benn téere boo xam ne lu dul xuus na ci leeral ci lu bëree bëri bëri yooyu kon euh, yooyu tamit ay application am na benn application tamit tudd adduraru saniya naam bu saggaaf jiite kon loolu ak yeneen yoo xamante ni ay mawsuwaal ay xadifiya yoo xamante ni borom xam liggéey nañ ci kon li ñu bëgg wax mooy wax dëgg yàlla tey jii ngant amatul balaa ngaa tuxal dara naan yonent moo ko wax ah di ko askanale na nga leeru ba xam ni wér na bu wéree nga tuxal bu wérul wax dëgg yàlla nga daat koy bàyyi balaa ngaa dugg ci man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min sa toog toog waay biir biir safara kon lii fii lañ yem tey incha allah taala ba subaak jàmm di gën a soññi ba tey mbokk yi nañu mokkal ahadis kon mën nañ ko liir ahadis yi bu ko defee ngir ñu ko bëgg a mokkal an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiq thalath ida haddasa kadab wa ida waada axlaf wa ida tumina xaan an jabir ibn abdillah radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna arrajuli wa bayna alshirki walkufri tarku alsolati rawahu muslim an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almuminu alqawiyu xayrun wa ahabu ila allahi min almumini aldaif wa fi kullin xayr رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الجماعة غفر الله له ذنوبه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه kon di leen jox tax daje ba suba ak jàmm wallahu taala ala wa alam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad mbokk ñu ngi leen di leen ziar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon ñu dellu si ak yéen ci jotaay yi nga xamante ne moo tudd ayat muxtaara ay aay yoo xam dañ koo tànn ci kàddu borom bi subhaanahu wa taala di ci indi ay leeral bis bu nekk kon tey mbokk mi aaya bi mu dugal mooy aaya bi nekk suratu yusuf aaya cent huit mu nekk aaya ba am solo lool qul haadihi sabili xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi bëgg a sóobu ci yoonu woote ci yoonu yàlla war nga koo bàyyi xel bu baax a baax ak ci lan ngay woote qul haadihi sabili adu ila allah ala basiratin ana wa man ittabaani wa subhaana allahi wa ma ana min almushrikin aaya bi nii borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax yonent bi ni ko neel yonent bi yàlla ni ko neel qul haadihi sabili man de lii de mooy sama yoon mooy sama tariqa tariqa buñ ko mooy yoon bi ngay jaar kon yàlla subhana fii mi ngi jàngal yonent bi alayhi ngir mu jottali xeet bi ni moom kat wooteem dafa am méthode nekkul woote kenn ku nekk noo ko sentir rek tey ñu bari nuñ ñu woote rek lañ koy woote yenn saa sax ñu bàyyi ay principe yoo xamante ni ay base la ci lislaam ngir ni rek dañoo bëgg lan dañoo bëgg a dajaloo pour woote loolu la chaque ni caaxaan la ak tappale ndax woote dafa war a tegu ci li nga xamante mooy xam-xam xam-xam buñ ko waxee mooy charian li mu tracé moo tax mu ni qul haadihi sabili lii de mooy sama yoon adu ila allah yoon bi nga xamante ni man ci lay woote mooy yoon bi nga xamante ni mooy yeggal nit ki ci li nga xamante ni mooy ëllëg aljanna ci daaru karamati kon ni ko imam saadi leeralee nee na yoon boobu mutadamminatun lil ilmi bil haqq wal amali bihi wa ithaarihi wa ixlaasi diinihi lillahi wahdahu la la kon loolu mooy yoon leneen yoon boo xamante ni wax dëgg yàlla ci xam la basé wu ci dëgg la basé wu ci jëfee la basé wu waaye ci li nga xamante ne mooy sellalal yàlla moom dong doo ko bokkaale qul haadihi sabili kon lii de mooy sama yoon ad'u ila allah damay woote jëmale ci yàlla woote jëmale ci yàlla mooy lan mooy damay soññi mbindeef yi ak jaam yi ngir ñu mën a am li nga xamante ni mooy seen ngërëmal boroom xemmem loo leen ci loolu waaye ragal loo leen lépp loo xamante ni daf leen di wax dëgg yàlla soril borom bi subhaanahu wa taala waaye nag woote googu may woote yoon yàlla yonent bi mu ni ala basira day tegu ci xam-xam moo tax ñu bëri tey xër lañ xër la demee ak sentiment waaye nag diine l'islam moom du xër ak ay sentiment diine l'islam diine ay preuve la ay ndës la ay tegtal faaw nga jàng ko parce que loo nekkul euh, sëriñ ndongaam mënoo nekk sëriñam comme ni ñu koy waxee yàlla li njëkk wàcce mooy iqra faaw nga jàng boo bëggee sóobu ci yoon bi nag faaw nga jàng ak loo xéer xéer nag wax dëgg yàlla faaw nga jàng faaw nga góorgóorlu te nekkul lu jafe wala walladina jahadu fii na la nahdiyannahum sublana wax dëgg yàlla ku góorgóor rek yàlla daal lay yombalal yoon bi kon faaw ñu am détermination góorgóor nangoo jàng jàng amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen Saalih ibnu Kaysaan benn borom xam boo xamante ne bi ci salaf la bokk bi muy commencé jàng am na son dix ans te mujj na nekk kàng fóore lan moo ko may loolu mooy ixlaas ak am détermination ak bëgg ak sax ci parce que jàng dafa laaj li nga xamante mooy sax xam-xam nekk un plus un égal deux déedéet kon wax dëgg yàlla lu jar a xel la moo tax dañ naan al ilmu thalatha dafa ñetti li nga xamante ni mooy étape la étape bu njëkk boo ci yeggee da ngay jàpp ne yow xam nga lépp naw sa bopp waaw moo tax ndongo daar yi doog a dal jàng wala ñu xam lu bees rek dañuy jàpp ne ñoom ñu gën a xam ñëpp waaw ñu demaatee ba ci deuxième étape bi xam ne kat ah wax dëgg yàlla nekkete am na masala bi am na ay wuute yu ci am am na ay borom yoo xam wax nañ ci kon nekkete moom la mu jàppoon nekkeewul noonu demeewul noonu muy nag commencé di bàyyi xel tuuti nag di ah kon nag naa teey mbir yu jaratul gaawant ku ñëwee ngeen ko dee du noonu li nga wax amul dalil amul ndëslaay bu eggee ci troisième étape bi nag ci lay xam ne moom xamul dara dara dara mu teel làmmiñ ak noppi di jàng di gën a góorgóorlu <laughs> waaw moo tax wax dëgg yàlla mbir yi euh, dafa laaj li nga xamante mooy teey kon li ñu bëgg a wax mooy yonent bi alayhi salaam moom yoonam yàlla moo ko tracé sabili sama yoon de mooy yoon bi nga xamante ni ci laay woote jëmali ci yoon yàlla waaye koy teg ci xam-xam kon xam-xam mooy baas bi innama al ilmu bi taallum yonent bi alayhi salaam mu ne xam-xam des koy jàng wa innama al xilm bi taxallum waaw mais fii laa juddoo ak sam papa moo nekkoon sëriñ ak ah, déedéet loolu teewul nga am xam-xam de xam-xam des koy jàng xam-xamu charia naam kon procédure bu gudd la kon qul hadihi sabili ad'u ila allah ala basira yonente mu ana wa man ittabaani xam nga waxul man dong waaye ak képp koo xamante ni bëgg na jaar ci sama yoon moo tax al ulama warasatul anbiya parce que borom xam ñoo doon lu yonent nan lañ doonnee yonent yi ci jottali gi ñuy jottali kon nan ngay doonnee yonent yi te jàngoo mënta nekk tey boo xoolee ñi nga xam ñoo ñu tudd ay sëriñ ñu toog tey ah falanku lay toog seen i nit ñu wër leen ñun ñoom ñoo doon yonent yi te jàngale wuñu Quraan jàngale wuñu sunna xamuñu ko sax ba koy jàngale kon ñoo ñax mën lan lañ mën représenté yonent bi ci kaw suuf dañuy caaxaan kon ñi représenté yonent ci suuf mooy ñiy jottali daawa ila allah mooy ñiy def al am bil maaruf wa nahyi anil munkar ñii leeral sunna ñii leeral tawxid ñii maytandikuloo nañu biddaa ak bokkaale ñoom ñoo doon yonent yi ci kaw suuf kon yonent mu ni ana wa man ittabaani kon képp koo xamante ne bëgg na ma topp jaar sama yoon faaw tamit ah muy woote ci xam-xam basira ba mu ko jeexalee mu ne wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin maa ngi tudd selluk yàlla tudd selluk yàlla subhanallah bu ñu ko waxee mooy dangay ngay sellal yàlla ci lépp luñ ko askanalee te jaaduwul wala lépp luñ ko askanalee te nga xam ne dafa dafa ànd li nga xamante dafa taxoog manqué subhanallah loolu lay tekki mooy at tanzih amma nusiba ilayhi bima la yaliqu bi jalal aw yunafi kamala ndax yàlla subhanahu wa ku mat sëkk la kon subhanallah loolee teg moo tax bi mu paree ci loolu mu ne wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin man may bokk ci bokkaalekat yi ci sama mbooleem li nga xamante mooy mbiri bal li am mooy abudullaha muxlisan lahu diin damay jaamu yàlla sellal ko kon mbokk yi bi dëgg yàlla tracé na li nga xamante ne mooy yoon wi mooy qul haadi sabili ad'u ila allah ala basira basira boobu nag foofu euh, ñu guddal mais Ibnu Uthaymin indi na ci ay détails yu am solo xam ngeen ni am na ay faculté yoo xamante ne li jàng mooy naka la ñuy wootee ci yoonu yàlla kuliyatu daawa waaw naka la ñuy wootee ci yoonu yàlla moo tax Ibnu Uthaymin basira boobu ay xaaj la qul haadi sabili ad'u ila allah ala basira nee na basira yow ci li ngay woote faaw nga xam ko faaw nga woote ci xam-xam basira ci ki ngay woo xaalul mad'u ki ngay wootam faaw nga xam mooy kan ndax ku féttéerlu la wala ku dëgër bopp la wala ku xam la pare teg ci tànkam wala ku réer la kon kenn ku nekk na nga war a jaamaarloo ak moom bokku la nga war a jaamaarloo keneen lu ñu tuddee méthode daawa moo tax borom xam-xam macha allah ñoom docteur Mouhamed Ahmad Lo ñëpp dañ ciy def li xamante ni mooy ay séminaire ci daawa naka ngay daawa naka ngay wootee ci yoonu yàlla ñu koy jàng ci faculté yoo xamante ni gën a mag la ci adduna bi ci université yu mag yi kuliyatu daawa usulu din am ñoo xam ku kuliyatu daawa dong lañ koy tuddee faculté daawa kon yow faaw nga xam li ngay woote ñi ngay woote faaw nga xam leen yan catégorie lañ yan qualité lañ yooyu yëpp nga xam leen waaye xam tamit basira ci fi nga xamante mooy environnement bi ngay wootee faaw nga xam fa parce que am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla kon Ibnu Taymiya di waxee nee na imam ahmad da doon sóoraale loolu lu bëree bëri mooy buy wootee da daan sóoraale environnement bi moo tax am na ay nit yoo xam dañoo nekkoon Iraq bi mu leen rombee imam ahmad nuyuwu leen naam mu am ay nit yu nekk xuraasaan mu romb leen nuyu leen gars yi ne ko imaam pourtant ñii nga nuyuwul ak ñii nga nuyu ñoo bokk même situation ibnu muy leer mu ne imaam ahmad raal makaan wa dhuruf dafa bàyyi xel bu baax a baax place ba ñu dund ndax iraq sunna tasaaroo na fa woon imaam ahmad fa la nekkoon mu nekk lu leer nañ amuñu benn lënt leen topp seen bànneex bakkan mu daal leen di hëjjër gàddaay leen waaye xuraasaan ñooñu nga xamante ne ñoo nekkoon même situation bi ñoom seen cas demeewul ñoom dañ leen a talbis gëlëmal leen wala ñu réeral leen moo tax ñaar yëpp doo ko bokk bokkuñu moo tax borom xam-xam moo mën a moo mën a xam loolu nit ki nag bu ko defee yow boo xamul da nga naan kii dafa am contradictoire wala am contradiction ah ay waxam dafa am ay juynoo fekk demewul noonu kon faaw nga ne am basira ci li ngay woote am basira ci ñi ngay woo am basira ci environnement bi nga xamante yaa ngi fay woote parce que al am bil maaruf wan nahi anil munkar borom xam-xam yeeg dëppoo nañ ñi woote bu fekkee ni jàllale kàddu yàlla dafa nar a jur fitna bu gën a garaaw dañ dañ koy bàyyi wala tasubbu alladina yad'una min dunillah fa yasubbu llah aduwan bi gayri ilmin loolu la yàlla wax bu leen ŋàññ yàlla yéefari bu ko defee ñoom ñu ŋàññ suñu yàlla lu tax bu fekkee ni kon la ca nar a ñu ŋàññ suñu yàlla dañ koy bàyyi te pourtant ŋàññ seen yàlla ñoom dénonce seen i caaxaan ak seen i tappale ak wareef la mais su fekkee la ca nar a juddoo dafa nar a nekk inconvénient boo xamante ne ñëw dalaat ci kaw lislaam dañ naan la déedéet bàyyi loolu Ibnu Taymiya pratique na loolu ba tàyyi romb na nit ñuy naan sàngar terewu leen tax parce que la ca nar a juddoo ñu bàyyee sàngar mooy dañuy dem di rey ay nit te rey nit moo gën a garaaw rey bakkan moo gën a garaaw foofu naan sàngar doon te yëpp a xaram loolu lañ tuddee tamit li nga xamante ne mooy muraatul masalih wal mafasid kon daawa euh, moom majaal la boo xamante ni euh, bu yaatu la waaye li ñu bëggoon wax rek mooy qul hadi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa ana min al kon li ci ëpp solo mooy yonent bi tracé na yoonam nii la ñuy daawa waaye dañ koy teg ci li nga xamante mooy xam-xam ak képp koo xam bëgg na jaar ci yoonam kon incha allah di leen jox dox daje ba suba ak jàmm wallahu taala ala wa